waaw su ko defee nag %e bu àll dikkee loolu mooy maane bi mu junj ni sifa su man jëf-jëfi feel na nga ko yemaleeg feel ci mën nga koo defee listixaal comme ni nga ko doon defee ci feel ndegam amul nag maane bu ko tere ñu ne aa ndeke sifa dana mën a jëf-jëfi feel te du tax mu mën a def listixaal ndax leneen lu ko ko tere loola lan la nu misaale ko sifa si bu fekkee dafa taara alif ak lam ni nga ni zeydun ana addaaribu doo man ni zeydan ana ana addaaribu lu tax alif ak laam gi ci daaribuhu lu dikk ci gannaawam te mooy daarib mënatul jëf ci lu lu jiitu ali mawsuud jooju te wa ma laa yaamalu fi mahal laa yufassiru fihi an lu mun la jëf fi barab munu faa firi te daari daarib ci bopp mun la arrière jëf fa du dëgg wuti naag feel seydan darab comme munu faa jëf nag kenn munu faa xasab feel joo xam ni day dikk di firi jooju ndax loolu fi maanal amal loolu mooy wasaw yi yamaleel filan wasfan wasaf za amalin joo xam ne boroom jëf la li annahu fi maanal xaal wala listiqbaal dégg nga na nga ko yemalee bil fiali ak fial in lam yakun ndegam nekkut nag booba maani on lu ko man tere de nde sifa si mën na jëf-jëfi fial ba yegal am maani ni ki sifa si dafa ànd ak alif ak laam te kon mën na jëf-jëfu fial attaa loo xam ne sax bu ko amuloon alif ak laam du ko mën ndax mooy ni bu xasee yor alif ak laam mën na jëf ci jamono bu passé mën na jëf ci jamono bii nuy wax mën na jëf ci jamono ëllëg te bu yorul al nag jamono bii nu teew rek la mën a jëf wala bi ci kanam waaye nag bii nga xamee ni par par partout mën na ci jëf ndax li mu yor al mais nag mu des nag dootu mën def listixaal moom lu ko def sifa si topp ci moom mooy ab daaribu mënatu la arrière jéggi al di jëf la jiitu al te fu waay mënu la jëf du fa mën a firi la fa doon jëf kor leer nga doon ni wa ulqatun xaasilatun bi taabii ka xulqatin bi nafsi lismil waaqi ulqakat limu li tefsiram gudd gàtt mooy damir ji jokk woon ci zeydu darabtuhu hoo jooju mooy ulqa li mu ci taq taq gi mu ci taq moo tax mu tudd ulqa bu la neexee ni ulqatun damir xaasilatun ju am bi taabiin ci taabi taabi lu muy doon naat ak yooyu kooku ma ngi mel ni ulqa joo xam ne ma ngi nekkoon bi nafsi lismil waaqi du dëgg maanaam mën nga ni zeydan darabtu rajulan yuhibbuhu seetal rajulan mi yow waxuloo ni zaydan darabtuhu rajulan mi nga nasab ci listixaal zaydan darabtu zaydun waaw maanaa darabtu rajulan yuhibbuhu jumla yuhibbuhu naat la ci rajulan te ca taabi boobu naat jooju ci la damir ja nekk waaye teewul nga mën koo defee zaydun zaydan waaw nga ni zaydan akramtu rajulan yuhibbuhu wala darabtu rajulan yuhibbuhu nga nasab zaydan darabtu xulaamahu kooku mu ngi ko waxoon ci aw bi idaafatin foofu la ana fiili wa luzumihi nee na taaddil feeli jalgatik feel wa luzumihi ak luzumu xam nga ni taaddiya moo taadda chey a mooy jàll na ko feelu mu taaddi mooy feel boo xam ni jëfam day jàll faayil mën a àgg ci mafool aywa safaanam ñu di ko wax laazim lu tax li annahu yalzamul faayila wala yataaddaahu danañu ko waxit qaasir li annahu qasura an anil wusuli ila al mafool kon nag feelu mutaaddi dañ ko wax mutaaddi di ko wax mujaawis ndax li muy jàll faayil yegg fee laazim it danañu ko wax laazim danañu ko wax qaasir li luzumi il faayila wala ñu ne ko qaasir li xusuurihi anil mafuul kon nag yooyu nag jalgati feelu ko laazimam la fasal bunt bi mu ni alaamatul fiili l muadda an tasil haa gayri masdarin bihi nahwu amil alaamatul fiilil mutaadda mandarga ma ñuy xamee fiilu mutaaddi mooy antasi la nga mën a jog ha an ha waaye mu faf laaf haa ghayri masdar haa ug lu dul masdar damiru haa ju maanaa haa goo xam ne dafa dellu ci lu dul masdar amma damir bu dellu ci masdar du tax nga mën a xam ne kat feel ji mutaaddi la du dëgg masdar ma foolu mutlaq rekk la damiram lazim mën na ko nasab mutaaddi mën na ko nasab ah ah waaye haa bu dellu ci masdar amma haa gu dellu ci leneen ni ki zaydun darabtuhu haa googu nga ci jokk delluwul ci masdar ah waaye amma bu fekkoon ci masdar la leen nga ne ad dar bu dóor ga darabtuhu maa ko dóor kooku kat du tax nu xam ne darabtu lazim la ndax lu tax man nga ne an naw mu nelaw ya numtuhu maa ko nelaw damir bi ci masdar rek la dellu mooy nga jàkk moo tax mu ni li ngay xamee ni feer ji mu tàddi la nga mën caa jokk xaawu damir gu delluwul ci masdar xaawu damir gu dellu ci masdar du tax nga mën a doog ne feer ji mu tàddi la de naxwu amila amiltuhoo def naa ko waaw kay ah dégg nga soo nee nangam sàngam ja al amiltuhu maa ko liggéey kooku amila mën nay mu tàddi moo tax nga naan amila zaydun baytan fansib kon nasabal bihi ak feelu mutaaddi mafalahu mafalam ah in lam yanum ndee mafal ma remplacé wul an failin ci fail wala kon wa illa irtafa wa illa irtafa artifail fail wala mu rafaawu rafaa ga fail doon rafaa su ko remplacé amma bu ko remplacé wul kon nasab ko naxwu nga ni tadabbartul kutuba tadabbartu seetlu naa al kutuba téere yi du dëgg ah buy fa in naabat anil maful ak nga ni tudubbiratil kutubu kon dañ koy rafa wa laazimun laazim kon mooy lan comme xam re na nga xayril mutaaddi ne laazim kon xayrul muadda loolu lay loolu dong lay wax ci taarifam comme xamal na la naqib bi safaan bi ah beneen bu dul loolu kon mooy boo xam ni mënoo jokk ci moom haa gudul gu dellu ci masdar du dëgg wa laazimun xayrul muadda léegi nag am fi'il yoo xam ni awsaan yoo xam ni ak maanaa yoo xam ni laazim la ñuy doon faw nag ñoom mu ni nag ba mu la xamalee mutaaddi xamal la laazim ma xamal la ni nag am na awsaan ak i yoo xam ni laazim dong la ñuy doon mu ni waxutima waraleef na luzumu afaali sajaaya doon laazim ci mboolem fi'il yi nga xam ni ay jikko la karumaak baxilaak saju aak jabu na ragal naag feel yi saji yeyi yëpp dégg nga nit ki kan nahima fuqale na maanaam xir ci lekk ba mu ëpp naham nahima kazaanaka noonu kooku ci ab si jikko yi ca maanaay la ca jikk ay sikkooki yooyu naka noonu ci bu dee yenn seexe yi nit ki wasnu if alal la xam nga amoon na ñeenti wasnu yu mu waxoon ci kitaabu tasrif nee na luzoom in xatam luzoonuha kaswa waaw na nga ko waxoon waf àlla waf àlalla fi sudaasi waf àll waf àlla wan fa àlla fi lxumaasi waf an la laf àlalla fi sudaasi yooyu yan mun xatimun luzoomuha kaxram baqa was warra na nga ko waxee xiir xram baqa kazaanaka noonu if àlalla wasnu bi kooku amul feel boo ko tëgg ak beneen wasnu if alal la laazim lay doon wal mudaahi ak lu nuroog iq an sasa wasnu if an la la ni ki iq an sasa ji firi bañ na doos lu na gëleem ga ba ñu koy womat nanguwul dikk xanaay bañ di doos lu ci gannaaw iq an sasa wa maqtada wala bépp feel boo xam ne dafa tegtale nadaafatan ak set feel boo xam ne maanaama set na lay firi ni ki tahara laab naag nadufa set naag dégg nga naqiya nee na kooku aw daan san wala safaan mu tegtale tilim salte xadira salte naag wasixa tire naag fiel bu tegtale set mbaa mu tegtale tilim lazim lay doon aw aradan wala mu tegtale gaar farixaak maridaak mooy sifa suy gaar yaram te du ca sax ni ki kontaante nga ni farixa wala marida feebar na yooyu a mooy arab du sifasu sax du dëgg aw taawa a wala mu topp al muadda li waxidin feel joo xam ne mutaaddi la ñeel menn mafool feel buy def mutaaddi menn mafool feelu mu taawa am ba muy xale yóbbaale lazim lay doon feel buy am ñaari mafool nag feelu mu taawa am ba muy xale yóbbaale moom benn lay am toujours mu taawi dana gàtt walis mu taawa dana ko manqué benn degré su mu fee mutaaddi bi day jël ga tiyaari mafool nga teg ca feelu mu taawa am benn la mën am su dee am benn feelu mu taaw am lazim lay doon du am benn mooy aw taawa al muhadda li waahidi niki lan maddahoo tàllal na ko ñaata mafool lay am benn fam tadda mu daal di tàllal lu nekk lazim du dëgg ah wa addi na nga jëlgatiloo laziman fi'lu lazim soo bëggee mu mën a am mafool du ko mën a nasab ak boppam lafzan de waaye nag xarafu jar nga cay dugal mu aju ci fi'lu lazim ji aju jaar ak majruur ak saraf seen aju ci fi'l bi maanaa amalu fi'l ji ak nasab rek la du dëgg soo nee marartu bi zaydin da nga war da nga mënul wax marartu zaydan rek dégg nga de waaye boo noon jaawastu zaydan jaawastu moom mu maratoo bokk te moom mën na nasabal boppam maratood na kon boo nee marartu bi zaydin bi zaydin jaar ak majruur la dégg nga aju ci maratu jaar ak majruur ji nag nekk barabu nasab palaasu mafool bihi la ne wa addi laziman bi xarfi jarin ni ki maratu bi seydin mu ni nag wa in xudifa suñu xadafee xarafu jarwa ak kon fa nas bu nasab ga ya day nekk lil mun jëri ñeel la jaru woon dañuy wëlbati ko nasab ko te fekk fin lazim bee fi ne loolu nag naqalan ci toxal kat jëlee ci arab du xiyaas de moo tax du doon amil lazim ju ne nga mën ko ca de waaye daal déggees na ko ci daxaltu ak sakantu daxaltul bayta lu mu doon dax daxaltu day mutaaddi du xoolu lazim la juloosu lazim la naw mu lazim léegi nag nga ni daxaltul bayta kooku daxaltu fil bayti la waaye toxal nañu arab dindi xarafu jarwa nasab ko mu mel na feel ji day mutaaddi te lazim loolu xiyaasuwul de moo tax mu ne naqalan ci toxal noonu jëlee ci arab sama an laa xiyaasan fu muy xiyaasu daal mooy bu dee ci wa fi anna wa an yattaridu ma am ni labsin su fekkee anna ak an la ñooy jaar ak majru ja fii anna wala min anna wala bi anna yooyu moom mën nga koo xadaf xiyaasu na bu dee majróor ma bu dee anna ak silaam la xarafu jar wa duggoon du dëgg ni ki ajibtu min an yadriba zaydun amran léegi na nga ni ajibtu an yadriba kooku moom xiyaasu na ma am ni seen ànd ak nag ñu wóolu ca lant nag amaa bu fekkee day indi lant ni ki bu doon baatu raxiba nga indi nga ni raxibtu fiihi ah mooy bëgg naa ko waaye gannaaw nga xam ne raxibtu anhu ba beneen jar majróor boobu mooy bañ naa ko te soo nee raxibtu hoo raxibtu saydan du daga ndaxte day andi lënt du dëgg jaar ak majróor ji jaar ma xarafu jar wi bu ñu bu feeñul rek maanaam mi nga bëgg du feeñ ndaxte raxib raxib raxiba fiihi mooy bëgg na ko raxiba anhu mooy bañ na ko kon nag raxibtu hoo doo ko wax ndax duñu xam da nga ni bëgg naa ko wala bañ naa ko du dëgg bu fekkee na nag an naag an la kooku moom nee na bu maanaa dama wax ni raxibtu anna zaydan raxibtu anna zaydan qaa'imun du dëgg kooku du du dagan ndax duñu xam da nga ni bëgg naa mu taxaw wala bañ naa mu taxaw yaxtamilu annaka da nga bëgg wax ni raxibtu fii anna zaydan qaa'im wala raxibtu an xiyaami zaydin maanaam waaw moo tax mu ni ma am ni alabsin bu dee ànd ak an te lënt amut dagan na du dëgg waaye bu lënt dee am nag du dagan dana am tàng boo xam ni xëy na bëgg sumuwal gu àndul ak tawdixu kenn ci ñoom leeral kenn ci ñoom loolu ay tàng mën na dikk ci kalaam bale qaala taala wa tarxabuuna an tankixuhunna ndax fii an tankixuhunna mu yóbbaale loolu ak an an tankixuhunna maanaa yéen yéen góor ñi bu ngeen yaree yatiim yu jigéen yi ba ñu mat a sëy taaratan dafay am tar eh, taaram mbaa alalam su ko defee na fa tarxabuuna tarxabuuna fii an tankixuhunna taaratan mën na ñàkk wala mu ñaaw au lieu ngeen def lu rafet xani bu fi naree lamb yéen ñii gën di yéen a yor kilifteefam te man koo denc ngeen denc ko muy lu rafet ngeen da ngeen di bañ du ngeen ko bëgg te loolu rafetul nee ñu mu fassiroon nee ñu su fekkee xasaf na xarafu jar wa dina mën a làmbaale yaar yëpp kooku ba maqsuud la waaw waaye kon maanaam pour mu làmb yooyu kook mooy xasdu bi way laa bu dul loolu kon duñ ko du du dagan nga xasaf ko ndax soo ko xasafee lënt am te kalaam bayaan lañ ci bëgg leeral luy indi lënt bu dee ci wax da ci ara ci wàllu attinahu dañu koy tudde lu daganul maanaam lu wér ma am ni lam si niki lan ajibtu yéemu naa añ yadoo ñu joxe dëya su fekkee da nga ne ajibtu min añ yadoo de dëgg kon eh, dana baax nga man koo def ndaxte kenn du defee ne da nga ne ajibtu yéemu naa an an an yadoo wëlis déedéet loogu léegi ajibtu an yadoo min an yadoo mën naa mën nga ko xasaf ndax du indi benn lënt dañoo xam ne yow da ngaa yé- yéem ci joxe gi ñooñu joxe day yi ñu war a joxe rek ajibtu min diyatihim la wal aslu lu doon cosaan sabqu faa'ilin jiitug la doon faa'il maanan ci maanaa dégg nga baat yaar suñu leen nasabee te xam ni ci maanaa kenn ki faa'il la digi ni ki boo ne labisa zeydun thawban nga dellu si ni albastu saydan thawban léegi zeyd moomu ñaar mafool bu njëkk la léegi waaye nag ci maanaa mooy faa'il li annahu labisu mooy ki sol soo ne albastu zeydan thawban ma ngi mel ni da nga ni labisa zeydun thawban nee na kon nag lu doon cosaan boobu na jiitu nga ne albastu sa kasawtu zeydan jubbatan ataytu amran dirhaman moo doon cosaan moo doon cosaan sabqu faa'ilin maanan ka man ni ki baatu man min qawlika albisun solal leen yéen góor ñi noonu tawkiit xafiifa moom la àndal albisu soo dindi woon noon gi la nga xadaf woon ngir moom dellu si ma ma min li ajlihi qad xasifa loola day dellu si nga ne albisu solal leen soo ko doon noonu tawkiidu shadid nga albisun na ngay wax dégg nga su dee xaf yi nga ne albisun albisun solal leen il faut nun tawkiid yéen góor ñi ku ngeen di solal man zaarakum ka leen siyaara si gane si leen lu ngeen ko solal nis jël yamani sér yi ñu rabbe yaman léegi li doon fayil ci maana ndax lu doon ci sa labisa zairu nis ja kon man zaarakum afool bu njëkk la waaye mooy maanaam fayil kon lu doon cosaan ñu dawal ko su fekkee ne nag dara xewul eh, bu la neexee def la dul cosaan nga tëb tëb ni ataytu dirhaman zaydan zaydan mooy maanaam afool bu njëkk mooy maanaam aji fayil hmm? bu dara xewul dana dagan su lënt naree am nag ah ñu def la doon cosaan bàyyi moom la ni woyal sam dana war léeg-léeg al aslu li doon cosaan te mooy lay mafool bu jëkk la doon faayil nga bàyyi ko faw mu nekk mu nga jiital ko li moo ji bin ngir lu koy waral araaloo xam ne gaar na te mooy bu lënt naree dikk dëgg léegi su fekkee da nga ni maanaam aataytu amran bakran ñaari nit lañu amar góor la bakkar góor la nga ne ataytu amran bakkaran kon nag na nga fexe ba amar mooy mafool mooy faayil ci maanaa na nga fexe ba mooy ki ñu jox mu tëyee waaye su fekkee bakkar la ñu jox mu tëyee nag loolu kon du dagan foofu ndax day indi leen ndax foofu mu ngi bokk ci place yi nga xam ne xifdul maraati bi moo fa war ku ne ñu bàyyi ko ci garaatam kon garaatu faayil kenn du ko mën a xamee lu dul ci jiital gi fii kéet noonu lay mel ndax ñoom ñaar ñëpp kullu kilaahuma yasluxu lil axdi ku ci ne war naa mën a nangu kon da nga naan ataytu amran zaydan ndegam amran moo tëyee zayd bu doon dirham sooy boo ne ataytu dirhaman zaydan du tee ñu xam ne zayd moo tëye moom la ñuy woyal zamu dana war al aslu loo doo doon cosaan nag nga xam ne kenn du ko fa bàyyi di def leneen li mooy jibin ngir lu waral loo xam ne aragaar na comme lënt moom léegi-léegi tarku daakal asli bàyyi cosaan loola def la dul cosaan di dawal mafool mu ñaareel mi léeg-léeg xat yuraa danañu ko gis xat man muy lu war dana am foo xam ne fokk mafoolu ñaareel mi la ñuy dawal du dëgg kalaam bu fekkoon ne da nga ne ataytu daara saaxibahu ataytu dirhama saaxibahu léegi li nga dawal mooy mafool bu jëkk dégg nga ndax dafa amoon loo xam ni moom la ñu ñaawlu damir bu jógee di dellu ci ñaar yaar yu yemul daraja su fekkee ni la gën a néew daraja dégg nga moo dawlu kon damir ja mën na jóge ca la ëpp daraja te mujj dellu ci lañ topp daraja ci gannaaw ndaxte su toppee gannaaw ci darajaat gañe na ci jiitu gi mu jiitu waaye du dagan nag tey saaxibahoo misaal mi mu mujjoon te damir ja nekk ca di dellu ci nga saaxiba nga ni tey nga bëgg ni ataytu saaxibahoo ak dirhama muy dellu ci dirhama kon saaxiba moo doon faayil ci ci cosaan ndax mooy aji jàpp ji mu aji fab ji dirhamam mooy la ñu fab la kon moo doon mafool ci cosaan naka jekk kon nag léegi ataytu dirhama saaxibahu loolu mën nga ni ataytu dirhama saaxibahu waaye bul ni ataytu saaxibahu ak dirhama ndax du dëgg ndax li yàlla yaxudu lismu ala mutaaxiri lafzan wa damir aw awdu mudmarin ala ma oxira lafzan wa rutbatan qabixun xadar damir ju dellu ala mutaaxirin lafzan wa rutbatan te su fekkee ni dafa dellu ci mafool mafool moo gën a topp gannaaw faayil kon bon na mafool ma fekk dafa jiitu bokk ndax su gënee néew daraja su toppee gannaaw ci darajaat gañe ci taqdim gi rek dégg nga su bo su ko defee nga ni ataytu dirhama saaxibahu fa innaka law qaddamta saaxibahu fa la aada damiru ala almutaaxiri lafdan wa rutbatan te loolu nee na waawdu mudmarin ala ma oxira lafdan wa rutbatan mu ni nag waxa xatman qad yura waxad fa fadlatin ajis illam yadir nee na fadla dagan naa xadaf su fekkee ne du indi lënt du dëgg su fekkee ne nee nañu la hal aatayta ahadan sawban bu la neexee nga ni aataytu zaydan ñu xam ni sawban kon loolu dagan naa xadaf bu la neexee hal atayta zaydan sawban wala nga ni hal atayta ahadan sawban nga ni ataytu zaydan in lam yadir yajuusu xadfu lfadlati wa hiya ma yumkinu listixnaaw anhu bokkut ak umda kal maf'ul waaxidan wala mutaaddidan wa minhu qawluhu taala fa amma man aata lu mu joxe xadaf nañu ko wattaqa ma lam yaxsul dararun bil xadaf ni ki lan mooy darar ga ka xadfi ma siiqa jawaaban ni ki xadaf loo xam ne dañu koo andi woon jawaaban mu di tont du dëgg suñu la ne man aatayta wala man darabta bul wax ne darabtu rek di xasaf mafool kon kay da nga naan darabtu zaydan ndax ki la naan man darabta yëg na ni dóor nga dafa bëgg a xam ki nga dóor kana léegi boo ko xasafee mu nekk darar ndax jawaab lañu moo doon li li war a doon jawaabu su'al bi man darabta koo dóor ni ko darabtu saydan aw xasira wala loo loo xam ne dañu ko xasar ni ki maa darabtu illa zaydan waaw foofoot kenn du ko xasar maa waddaaka rabbuka waaw kooku du atafuñu du du du jawaab du dara maa waddaaka bawla rabbuka wa maa qalaa waxul ni wa maa xalaaka ndax ma kaaf gi ci waddaaka tegtale ni xalaaka maa waddaaka bàyyiwu la rabbuka sa borom wa maa xalaaka bañu la it nga xadaf ko te amul lool xasf in lam yadir ndax li anna alxasf la yadur ndax du teeñu xam ni wa maa xalaaka comme maa waddaaka wa yoxdafu danañu xadaf an naasibuha la ko doon nasab danañu xadaf an naasibuha la ko nasaboon in ulima suñ ko xamee bi an dalla dalla alayhi dalilun naxwu an yuqaala man darabta koo dóor fa taqulu zaydan kon li ko nasaboon du mooy fiil li nasab mafool mooy fiil bi moom la ni li nasab fadla boobu mën nañ koo xadaf suñ ko dee xam boo yaxdafu danañu xadaf an naasibu haa fadla li nasab fadla ni ki mafool bi in ulima suñu la nee man darabta koo dóor nga ni zaydan ñu xam ne da nga ne darabtu zaydan wa qad yakunu xadfuhu multasaman léeg-léeg xadafu fiil jooju kat mën na doon lu ñuy warlu faw lu mel na li daan am ci tanaasu maanaam wala li am ci listigaal nga naan zaydan raaytuhu foofu mafool bi ko fiil bi nasab zaydan fokk dañ koy xadaf ndaxte kenn du boole mufassir ak mufassar la fi l amal tanaasu lugatam xëccoo lay firi ci olof ñu ngi ci jublu yaari fiil mbaa lu ko ëpp mbaa fiil akub lisim boo xam ne bu ci ne dafa war a jëf lisim dana jëf-jëfi fiil ku dee sifa ñu xëccoo benn maamuul wala ñaar wala ñett yi xëccoo mat na mën na bu yeboo benn la mbaa ñaar mbaa ñett yee ñuy xëccoo fekk lu mu ci mën doon benn la mbaa ñaar mbaa ñett yaari amil mën na xëccoo benn maamuul yetti amil mën na xëccoo benn yaari amil mën na xëccoo yaari maamool wala yetti amil xëccoo yetti maamool niki ci xadiisu tasab dégg nga mu ni na mu ko waxee tusabbixu tusabbixu wa taxmadu wa tukabbiru ñetti amil allaha dubura kulli salaatin salaasan wa salaasin seetal tusabbixu dafa bëgg a nasab yetti maamuur yooyu yëpp taxmadoot bëgg leen a nasab ñoom ñett yëpp tukabbiroot benn bu ci dikkoon dafa bëgg a jëf yett yëpp ñoom ñett nag maamuul yet yett la allaha mafaulu bihi du dëgg dubura zarf la zarfu zaman la salaasan wa salaasina mafoolu mutlaq la dégg nga ni tus dafa bëggoon ni tusabbixu llaaha dubura kulli salaatin salaasan wa salaasin mu nasab laaha mafool nasab dubura kulli salaatin zarfu zaman nasab salaasan wa salaasina muy mafoolu mutlaq mu remplacé masdar aywa naka noonu wa tukabbiru laaha tusabbixu tusabbixu wa tu wa taxmadu wa tukabbiru allaha dubura kulli salaatin salaatan moom la ni in amilaani su fekkee yaari way jëf iqtadayaa dañoo sàkku amalan jëf amalan dañ ko nasab de waaye waqfu rabiata la fi taxawali qabila arab bu ñuy wax rafia dégg nga bu ñu ca dee bu ñu dee taxaw ci mansuub ñoom moo marfo ak maj ñooyam dañu naan jaa zayd bu dee ñee ñu ne raaytu zayda ñoom ñu ne raaytu zayd arabi rabia ñu ne waqafa alayhi waqfa rabiat in iqtadaya wut nañu amalan ab jëf fismin ci benn lisim qablu dégg nga joo xam ni jiitu na kon falil fal amalu jëf ja lil waaxidi ñeel na kenn minhuma ci ñoom ñaar ya kon ku ñu ko ciy jox nga ni ah, dóor naa zayd gis naa zayd nga bëgg leen boole raaytu wa darabtu kon koo ji da ngay nasab zaydan ñu xam ne ah, darabtu moo ko nasab ah déedéet ah, da nga ni raaytu wa darabtu de, de kooku yooyu dañoo bëgg a nasab du dëgg ah, dégg nga wa da- wala mën nga ni raa zaydun wa daraba amran dégg nga maanaa kon falil fal amalu jëf jëlil waaxidi ñeel na kenn minhuma waaye nag ku ñu ko ciy jox dégg nga su fekkee da nga ni eh,